daa leen wax di yàgg naa leen ko wax di am taw taw fexe ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi fekk nekk ci li gën a xas dégg ci xas yi xaas la am xaas la am bu wér wér wér yoo xam ne taw bi ñëpp rek dañ ko bale xaas xaas ngeen ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye lii xaas ngeen am. bismillahi sos na ma sama wax ci turu bi. arrahmaani buur ba di aji xéew laa kon ñëpp ci àdduna arrahiimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci alaxira sala yàlla julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang muhammadin turam di muhammad wa ala ali moog waa këram wa sahbi ak sahabaam yëpp wasalama tëbu sëlmal ci moom tasliman ak sëlmal kama waxaba comme ni maye moom yàlla li ñal ma maa aqastuhu la jëlee ko min xurufi mu bàyyi ko ci xurufi lafsil jalaala ci turam wëb di allahu bi fadli laahi la mu ne maa ngi tàmbali ci turu sunu borom yàlla mu di xew koon ñëpp ceedu na yàlla mu di aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira maa ngi dagaaj sunu borom mu julli ci yonent bi di sunu sang turam di Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak i saabaam te ci moom. comme moom yàlla ni ma maye ci ngëneelam li nga xamee ne mooy xasida gi nga xam ne dama ko tënkee Allahu kon lii muy nettali ci biir xasida gi nga xam ne moom lañ bëgg a firi yàlla da ko may rek ci ngëneelam mu ne yàlla ni ma mayee ci xasida gi maa ngi dagaan mu jëlee noonu ci bi ak waa këram ak saabaam kama waxaba comme ni maye lii ñal ma maa axastuhu la jëlee naa ko min hurufi lafsil jalaala mu bàyyi ko ci hurufi lafsil jalaala te mooy allahu bi fadlillahi ci ngëneelam moom yàlla ci ngëneelam daal comme ni ma mayee lii may nettali ci xasidi gi te tënkee ko min hurufi lafsil jalaal mu bàyyi ko ci allahu boo déggee ismu jalaal mooy turu allahu kon yàlla lii muy nettali ci xasidi gi eh, dégg nga ne yàlla da koo may yàlla da koo defal moom sëñ Tuubaa ci ngëneelam moom lay nettali nii ana lu ko yàlla defal ci ngëneelam mu ne isaa katabta saa bu ma bindee yaxtasa dal di gësamu arsul baqi gànganaayug yàlla muy aji des ji wa sabaxat dal di sabbaal malaayiqu tibaqi malakaay malaaka yi nekk ci déere asamaan yi asamaan su nekk am na dégg nga jaami yàlla yu fa nekk di leen jox wax malaaka ba asamaan yi juróom-ñaareel malaaka yépp ci am nag la wax mu saa su ma bindee arsug yàlla ga gànganaayug yàlla ga ci boppam mooy njëkk a jaayu yëngatu ndax aras bu leen fàttali ñu ngi ko bind ci leer bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bindiñ ko ci leer bi yàlla waaye ci leer bi yonent bi ci la baye ko te xasiid yi nag leer bi yàlla lañ kon nag loo dégg rek ñu ne mbir dara yëngal ko la ko yëngal da ko ëpp doole kon xasiid yi leer gi ci nekk dafa ëpp doole aras moo tax nag fu ñuy jàngi xasiid yi wala sëriñ bi di ko bind rek aras ci boppam dafay dal di jaayu waaye fu aras di jaayu def ne malaaka ya nga xam ne ñoo gën a jege yàlla rawatina malaaka yi nga xamee ne bi leen yàlla bindee ba léegi ñu ngi sujjoot te duñ siggi mukk yii ñu ngay rukoo duñ siggi mukk malaaka yëpp la sëñ Tuubaa wax ñoom ñëpp dañuy sàbbal tudd yàlla tudd màggaay yàlla ndax mbind yi moo am doole fo aras di jaayoo dégg nga defe naa ne malaaka moom taxul ñuy wax isaa katabtu saa bu may bindee intasa dal di gësamu arsul baqi gànganaayu yàlla muy aji des ji wa sabaxat dal di sàbbal malaayku baqi malaakay déeli asamaan yi asamaan su nekk rek ak yàlla malaaka yam fa dégg saa su may bind rek malaayka ci boppam dañuy sàbbal di tudd yàlla lisaanu sukuri ya làmmiñuk sama tudd yàlla wa sukuri ak samay cant yàlla raafaqa dañuy àndante ñoom ñaar lil xar si jëm ba ci aras wal kursi yi ak kursi yu nooran mbir mu ñu nekk leer goo xamee ne waafaqa danañu dëppoog ñoom ñaar mu ne sama tudd yàlla ak samay cant cant gi may def daal ci sama làmmiñ ak tudd yàlla gi may def sama làmmiñ saa su ma tuddee yàlla sama làmmiñ mbaa ma cant ko rek ñaar yooyu yëpp dañuy àndante dem ba xaras ak kursi yu waaye nag bu ñuy dem dañuy nekk leer kon gis nga ko li bay ko ci sëñ Tuubaa muy tudd yàlla li ko ci sëñ Tuubaa muy sant yàlla loolu leer la goo xamee ne su fekkee su fenkee ko ci làmmiñu borom Tuubaa muy sant gi mbaa tudd yàlla gi dafay nekk leer guy jëm xaras ak kursi yi te su ñuy dem ñoom ñaar ñooy ànd moo tax mu ne lisaanu sikriya sama làmmiñu tudd yàlla wa sukuri ak sama cant raafaqa àndante nañ ñoom ñaar lil arsi jëm ba ca aras wal kursi yu ak kursi yu nooran mbir moom ñu nekk leer goo xam ne waafaqa danañu dëppoo ñoom ñaar lu bii samam xel mun na warul lu ñu leeralee la bi nooril wax yi ca leeru wax yu ga waxaada woo mat na lii jox ma xayral oloomi ngën gi xam-xam yi almux yi yàlla muy aju dundal ku ko neex nee na samam xel dañ koo leeralee fa nga xamee ne fa la sun borom tibbee alquran mu nekk wax yu mu dog koo indi ci laxul mahfuz alquran na ngeen xam ne ñi ngi ko jëlee ci géej gu ñuy tuddee nooril wax yi foofu lañ tibbi alquran indi ko ci laxul mahfuz li nga dégg ñu ne alquran jëlee nañ ko ci laxul dégg nga indi ko ci benn néeg bi nga xamee ne moom la ñuy wax as-samaa u dunya ñi ko wax baytil isa su ko defee nag yàlla di waajal jibril xew-xew bu am ci àddina rek am aaya bu ñëw da ko wax di ko waxtaanee dégg nga lan mooy atteya ak la ci aaj yépp waaye suñ ne nuurul wax yi mooy géej ga nga xamee ne fa lañ tibbee alquran doo ko indi ci laxul mahfuz te jibril mantu dem ci laxul foos rek di indi alquran bu demee rek bala moo mën a jot ci aaya ba wala saar wa dañ koy waajal ba man koo jël waaye su demoon rek naan da koy jël day seey nger leer ga atnut ko kon loolu moo tax kon waxuma laa nag ki nga xam ne su demoon ci laxul mahfuz muy jibril te yàlla da koo bind mu nekk leer képp képp képp képp wuuteeg doomu aadama nit nit ñi ndax malaaka la waaye mooy seen amir mooy seen kilifa ñoom ñëpp moom jibril soo ko doon misaal nga ne mooy seen sëriñ malaaka yi mooy seen sëriñ waaye kooku su fekkee su demee ci lawhul mahfuz ne day indi alquran leer gam fay fekk mu nekk alquran day seey ngir leer gi mu kopp doole waaw léegi fi ñu tibbee alquran nag fi nga xam ne fi lañ tibbee alquran doo indi ci lawhul mahfuz léegi foofu nag jibril moom bu fa demee nu muy war a mel kon day seey ni nga xam ne nag karaw soo ko dugalee ci taal ni muy lakkee ba seey noonu lay mel sëñ Tuubaa nee na man waxuma lawhul mahfuz diñ jëlee alquran ko ci benn néeg bu tudd baytul asa di ko jox jibril mu di ko indil yonente bi waaye man fañ tibbee alquran ca leeru waxee ko foofu lañ sóob sama xel kaa loolu da nga ciy déggee mooy borom Tuubaa kon lu mu génn rek njëriñ la ndax foof moom njëriñ rek moo fa a beekoo géeju wax yu ga njëriñ rek moo fa mën a beekoo moo tax nag mu ne sama xel dañ koo leerale le leeru wax yu ga fa wax di bay ko man foofu lañ sóob sama xel rek moo tax lu mu génn njëriñ la yàlla mi aji dundal ku ko neex xam yi gën moom la ma ma teg sama loxo moo tax ma ne lu bii sama xel mën na wërun lu ñu leeralee la bi nooril wax yi ca leeru wax yu ga waxaada womatal na di jox ma xayral ulumi ngën gi xam-xam yi almuhi yàlla muy aji dundal ji an naxwu xam-xam bu ñuy wax naxwu walla xaruudu ak xam-xam bu ñuy wax xaruud wal bayan a xam-xam bu ñuy wax bayan su libat rinkees na yooyu yëpp lii te ko sama loxo waxal ne wali ñeel na ma man borom tuwaa bihaa ca xam-xam yooyu xeyaanu lu ñuy tuddee al musaahada muy jàkkaarloo xam-xam yooyu yëpp mu ne xam-xamu naxu grammaire dégg nga xam-xam bi lay jàngal wàllu naxu grammaire ak xam-xam bi lay jàngal arut lu jëm ci wàllu woy ak i bu damee ak i caaju li koy jegal xam bu jëm ci bayan yëpp ay jumtuwaay la dégg nga kuy dem tool da koy soxla waaye xam-xam solo mooy xam-xamu tawhid ak fiqh ak tasawuf yii boo ko bañ a jàng ba tey waaye yee moom da nga ko war a jàng ala kulli haal waaye yii nag moom ay jumtuwaay la rek dégg nga wal bayaan nag xam-xamu bayaan mooy xam-xam bi lay jàngal rafetu wax ak fasaaxa nee na ñetti xeeti xam-xam yi nga xam ne jumtuwaay la yu am solo soo amee xam-xamu tawhid ak fiq ak tasawuf soo amee ñetti jumtuwaay yi mën nañ laa dimbale ci lu bari loo bëgg a def rek mën nañ mën nañ la caa dimbale ba doo ca yàq ba doo ci indi ak juum loolu yëpp tabaarakallahu lépp loo xamee ne bëggoon nga ko def juum rek naxu mën na la ciy dimbale enroute mën la ciy dimbale bayaan man la ciy dimbale nee na ñoom ñëpp seen siru seen secret rocci nañ ko jox ma sulibat lii mooy dañ ko riñ ki jox ma ko barke ak secret ba yëpp su ko defee nag xëy yàlla ca nga xamee ne xam-xamu naxu ci boppam sëñ bi suy bind su ko neexee du ko utiliser waaye xam-xamu naxu mooy ñëw topp sëñ Tuubaa dégg nga lu ñuy wax aroot dafay ñëw topp sëñ Tuubaa bayaan ñëw topp sëñ Tuubaa ñoom ñëpp dafay jàkkaarloog ñoom ñi nekk ay jëmm sëñ Tuubaa di leen jëfandikoo. kon gis nga moo tax ne naxu xam-xamu naxu muy grammaire wala aroot xam-xamu aroot mooy xam-xam bi lay jàngal wàllu way wala bayaan ak xam bu ñuy wax bayaan bu lay jàngal refetu su li ba te riñtees na ko lii jox ma wala ñeel na ma bihaa ci xam-xam yooyu xëyaanu al musaada mooy jàkkaarloo nga xam ne kenn ku nekk dafay nekk jëmm ñëw tiim sëriñ bi su ko defee ne sëriñ bi di la utiliser mu ko soobee nu mu ko neexee. dafa naa ne ki nga xam ne dafa dem ci daara yi di jàng xam-xam yi bokkut ak ki nga xam ne xam yi ci si boppam ñooy waaxul seen bopp ñëw ci moom. araba daw na min kitaabati ci samay bind almat wara ka ñu dàq mu lay mu wëli sirmande yàlla wa bi huruf ci sama xaraf yi tataxanaa ci lay wëyantoo alxuuru jigéen xuurul ayni nee na iblis su may bind dafay daw samay bind iblis ci boppam da ciy daw waqiit al mathuur ci turu iblis la mooy koo xam ne yàlla daq na ko ci mboolem yërmandeem dégg nga yërmande yàlla yàlla daq na ko fépp mbugulum yàlla rek ak rëbbum yàlla lay dajek moo tax ma ne sama bind nag kañ ñu dàq ka mu wëlis yërmande yàlla da koy daw fu ñu koy jàngee wala ñi koy bindee iblis du fa jege waaye sama xaraf yi noonu la koy jigéen wurul ay di wéyantoo muy neex ñoom lool waxtu wu ne jigéen wurul ay ñi ngay wéyantoo xasida borom Tuubaa yi kon ñi nga xam ne nag ay nit ñu ñuul lañ wala ay nit ñu weex lañ di wëyantoo xasida yi na xam ne kon ka topp toppandoor muy jigéeni xóorul ay ni wala benn ñi ñuy toppandoor mooy malaayka yi kon ñooñu dañ koy wëyantoo moo tax mu ne xaraba daw na al matxuura kañu dàq mu lu yërmande yàlla ji min kitaabati ci samay mbind su may bind ba may jàng wala kenn di bind wala ñi koy jàng iblis day daw te woo bi xuróof yi ci samay xaraf yi muy samay xasida yi tata xanaa da koy wëyantoo al xóori jigéeni xóorul ay nii mu ne nag yàlla li ma may lii wa juudihi ci ak tamam wa karramihi ak tiraangam walaahu yàlla wakiilun aji seede la alama nuquli ci lii nga xam ne moom la wax ci xasida gi mu ne lii yàlla may gi ma ko may ci tabe gi mu tabe rek te a maye bokk na ci jikko yàlla yi meloom yi mooy ku tabe tabe ci melo yàlla yi la bokk bokk ci melo yàlla yi mooy ki mën a terale mu ne yàlla su ma mayee lii ma tudd ci xasida gi nag ci ak mayam la rek ak ci ràngam te lii ma wax ci xasida gi yëpp yàlla seede na ko su ngeen ko weddee yéen xam ndax xam na ne am na ñu koy weddi moo tax mu ne su ngeen ko weddee yéen a xam. allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan bi àqi wajillahi ci àqi sa jëmm ji yàlla taala yow mi nga xam ne nag kawe nga alkarim yi tey aji tedd salli yàlla na nga julli wasalim te sëlmal wa barik te doolik barke ala sayidina ci kaw sunu sang o mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad waali julil ci waa këram wasan bi ak saabaam yëpp yan sun borom maa ngi lay ñaan ci xaq sa jëmm ju tedd ji yow yàlla mi nga xamee ne ku kawe nga li ma lay ñaan mooy yàlla na nga jullee ko sëlmal te dolli barke ci yonent bi di sunu sang bi sallallahu alayhi salam di sunu kilifa turam di Muhammad waaye na nga julli ci waa këram ak saxaabaam yépp waj sub yàlla na nga ñoddil ilee jëmee ci man kullama lépp loo xam ne ajrayta dawal nga ko ba noppi mooy bind nga ko ba noppi rek fii law ci sa biit xalawaja almaxfuusi xalawaja nga xamee ne gu ñuy wëttu yow sunu borom lépp loo xamee ne da nga koo dawal bind ko bam sax ci lawhul mahfuus ba noppi te lawhul mahfuus moom lépp lu luñ fa bind rek kanaa mu neex yàlla mu far ko wala mu neex yàlla mu bind ko foofu moom bind ak far rek moo fa am te loolu yëpp si cooba rek yàlla rek la waaye amul keneen ku fa sañ a bind wala mu sañ far ku dul yàlla. mu ne nag yow sunu borom yàlla nga ñor di jëmee ci man lépp loo xamee ne dafa da nga dawal bind ko ba noppi ci saalo jooju nga xam ne mooy moom la ñuy tuddee lawhul mahfuus moo tax mu ne wasub yàlla na nga ñoddil ilee jëmee ci man kullama lépp loo xam ne ajrayta dawal nga ko fii law yi ci sabit alawaja al mahfuz wér guñ wattu ne annahu naka moom lii ñeel na ma wa ax ni nii yàlla nag ma doyluloo fii ci biit alaw joj ji lawul mahfuz bi jes bi ko ci sag ñoddil ilee jëmee ci man xan jes bi walis may ñoddil sama bopp iyaahu moom ilee di jëmee ci man wasrif yàlla na nga wëlbati ilaa xayri saati mu daw jëm ci fudut sama jëmmu wa ilaa xayri jiat yi ak mu daw jëm ci fudul sama wàll kullama lépp loo xam ne ajareta dawal nga ko muy bind nga ko ba noppi fii laafu ci sa bit alwaja almaxfuus gëd guñ wattu ne annahu naka moom loolu kat lam yëkun nekkul mukk lii di ma ñaal wala yëkunu tëdu nekk mukk lii di ma ñaal wa ax ni nii nag ma doyluloo fii ci biit xalwa jooju bi daf ni ko ci sag difandaral ci sag joñal ilaa xayri mu jëm ci furun man wa ilaa xayri jaat yi ak mu daw jëm ci furun sama wàllu an dafin wali su may juñal sama bopp iyaahu moom amin yàlla nga nagu ñaan yaa rabal alamin yow yàlla muy borom bindee fi wajaal yàlla nga def kitaabati sama mbind mii li haasal huru li haasil huruf ci yii xaraf yow ma maxwika mooy bisuk sak far xan nii mu sëri ma kullama lépp man bindoon naa ko bil kayfiya ci ay melokaan ci ay kayfiya walam yëkkun ta nekkut walam yëkkun ta nekkut min ka di tukkee ci yow ci man siran moo xam ci lu nëbbu alaaniyatan ak ci feeñ wax sim yàlla na nga musal ku liiti sama lépp min ku limaa ci lépp loo xam ne lam yëkku nekkul ridaaka sa ngërëm nag ma ci musal xan ni mu walis ma abadan faw amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bindee fi yaa man yow yàlla mi xamee ne loxo ñen na la yow am di samay cant wax ju xaw a ruqi la waaye soo ko bëggee dégg rek ñaar rek la te ñaar yëpp yàlla da koy def bind ko ci lawul manfoos yàlla dana bind ci lawul manfoos ne diw mii kat bind naa ci ak texeem mba ak texee dem rek ci misaal wala bind naa ci ak jalboom wala ak dafoom nga xam lépp lu nar a wàcc ci moom ci xeeti lu muy ragal maa ko koy dafoon wala lépp lu nar a wàcc ci xeeti yiw ci moom maa ko koy ñoddil mu ñëw moo tax sëriñ bi nag nga ñoddil ci man lépp loo xamee ne daal yàlla bind na ko ci loolu moo fas ne aw yiw la mu war a ñëw ci sëriñ Tuubaa te bu ñëwee ci moom du ko naqari mu ne yàlla bala ma ko ñoddi rek sax ñoddi doy na ma nag ma ko ñoddil mu ñëw yow kese waaye mu ne na nga wëlbati mu jëm ci fudul sama jëm ak fudul sama walla ba tey lépp loo xamee ne da nga koo bind ba noppi ci laxul manfos na lii lu war a am la ci man mu nekk lu ñuy tuddee safaan mu nekk loo xam ne su ñëwee mën naa doon aw xay wu nar a këpp sama kaw yàlla man sama joñu bopp doyut ma ci dama bëgg nag nga joñ ko mu jëm ci fudul sama walla ak mu nga joñ ko mu jëm ci fudul man ak fudul sama wàll ma bañ a joñal sama bopp daal ci gàttal yàlla na nga def xasida gi nga xamee ne mooy xaraf yi mu nekk bis bi nga xamee ne ci nga faree ci man lépp loo xam ne bindoon naa ko ci ay kayfiya ay kayfiya mooy loo xamee ne dégg nga ay melokaana lañ koy tuddee mooy loo xam ne sëñ bi da koo jaayantoon diggantem ak boromam. te bindoon na ko ba noppi ne du ko lekk mbaa du ko xool mbaa du ko wax mbaa du ko yéene mba du ko jëf mu ne lépp na ko yàlla far mu génn ci moom ba set wicc ci moom moo xam ci lu nëbb ak ci lu feeñ waaye mu ne yàlla na nga musal sama lépp ci lépp loo gërmut ci man rek yàlla musal ma ci ba bu ma jege yow yàlla muy borom bindee fi yow mi nga xam ne daal sama cant ci yow la jëm moo tax mu ne wajal yàlla nga def kitaabati sama mbind li haasul huruf yi xaraf na ko def nag yow ma max wi ka mooy bisub sak far xani mu seri ma kullama lépp loo xam ne katabtuhu bindoon naa ko bil kayfe ci ay kayfe mooy ay melokaan yoo xam ne da ko jaayanteeg suñu borom te dootu ko lekk du wax lu ci jëm mukk mu ne na nekk bis bii nag na nekk bis boo xam ne yàlla da koy far ci moom génne ko ci moom ba mu set wicc moo tax ma ne lépp loo xam ne bind naa nekkul di bàyyi la te bokkut ak loo xam ne dafa bàyyi koo ci yow di loo xam ne lam yëkkul nekkul ridaaka sa ngërëm nang ma ci musal xan mu sëri ma ndax lu ngërëmal yàlla nekkul moom borom tubaab bëggut ko abadan faw na nga koy def nga ma koy sëril amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bindee fi yaa man yow yàlla mi xam ne loxo ñeel na la am samay cant su ko defee nag xasida moo nekk nii mu tënkee ku waat ba tey allahu di ci sant yàlla sëriñ bi kon moo màggalal boppam ndax xasida yëpp dafa jëm ci sant yàlla loolu mooy màggal rek di suur safar xaada womat na ilee jëmee ci man allahu yàlla maa loo xamee ne lam yu ku mostu nekk wala yëkkoonu te du nekk li si waay ma koo defal bi yàlla may na ma loo xamee ne ñi ma fi jiitoon amul kenn ku ko yàlla mos may ñii ñëw sama gannaaw kenn du ko yàlla du ko mos may kenn man rek la ko defal waaye ba ma koy defal da koo def ci anamu kut da koo def ci anamu kun ba noppi côté ko mooy tëj na ko waaw nga xam ne may la goo xam ne dal yàlla daal ba mu ko mayee sëñ bi tëj na ko dootu ko mayiti ken <laughs> waaye la liggéeyal yàlla nag maanaam yàlla xatut waaye nag la sëriñ bi liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko lii keneen da koo mëntu liggéeyal suñu borom subxanahu wa taala kon gis nga ko ilay qaada allahu ma lam yakuni ndax yàlla da ko waajal kat bu leen fàtte dafa bokk jaam ñax ne yàlla daf waajal mu ngi noonu waaw coono yi waroon a tegoo ko ci jaam ñëpp Sëñ Tuubaa da koo gàlloo moom kon loolu mbir la moo xam ne suñu borom moo ko ko tegoon waaye teggil ko ko waaye natt woo ne mosu teg kenn waaye itam ba mu ko ba teggil ko ko jox na ko may yoo xam ne mosu koo jox kenn tudd du ko jox kenn moo tamit ne na ilay jëmee ci man allahu yàlla maalam yëkkuni loo xam ne mosu koo may kenn wala yëkkunu te du nekk li si waaye ñeel bi ci barke kun sëñ Tuubaa moom danaan ku dul man yàlla du ko may loolu moom yéexal na wax laali yuwajjihu siwal bisri qadar wa yantahi ila siwa saatil qadar laali yuwajjihu moom yàlla moom laa yuwajjihu mooy du jëmale mukk lii ci man siwal bisri qadar lu dul mbégteem dogal yi wa yantahi dana jëmale ila siwa saati mu jëm ci fudut sama jëmu alqadar muy dogal yi nga xam ne dogal yu naqari la yu nëx mu ne sun borom ay dogal yi muy dogal ci man yépp lu may bégloo rek la xam nga yàlla mooy dogal lu neex ak lu naqari kum dal yàlla moo ko dogal sëñ Tuubaa nee na man mucc naa ci bu naqari bi léegi nag yàlla bu neex bi la may defal waaye la di mag boromam moo tax mu ne laa li yuwaju siwal bisri qadar waaye wa yent yi dana jublu ilaa si waa saati bu jëm ci furu sama jëm alkadar nëx-nëxi dogal yi dafa am dogal yoo xam ne su dalee ci jàmm bi onk rek ci lay nekk ak jooy ak ak ak ak ak ak ak yu mel noonu waaye nag sëñ bi nag nee na suñu borom musal na ma ci loolu léegi dogal bu ñëw ci man rek dogal bu neex la dogal bu neex ndax léegi tukki bi jeex na dégg nga ko la ko waraloon mooy ba mu nekkee ci géej gi dogal yu naqari yu nëx yëpp da ko daan muñ moo tax léegi nag dogal yi dogal yi nga xam yu neexi rek ñooy ñëw mu ne ko ab xaasaxal na saati sama jëmm li wàcc ngir sa jëmm ji alkarimi ji daa ji tedd wayestu te dana nëbbu al ansama la gën a màgg fii la saati ci samay biit bànneex mu ne yàlla daf bàyyi sama jëmm ji ngir jëmmam ju tedd ji daf ma fi bàyyi ma di fi sax ngir jëmmam ju tedd ji te sama bànneex sama yëg bi ma am ci yàlla sama bànneex ci yàlla mooy lépp loo xam ne bëgg naa mu am rek ci ismulaay asam ci laa koy amalee yàlla daf maa nëbbal nga xam ne léegi sama bànneex li ma yëg ci sama jëmm ak sama xol ak sama ruuxu lépp lu ma yëg te bëgg ko rek yàlla da koy def ndax ismulaay asam waxuma la yàlla may ma ko nii wala xamal ma ko waaye yig yëg bu ma amee yëg-yëgub dara rek yàlla daf may defal loolu moo tax ma ne ab xaa saxal na saati sama jëmm moom yàlla li wàcc ka ngir jëmmam ji alkarim ji daa ji tedd wayasturu te dana nëbbu al la gën a màgg te mooy <laughs> gis ko ko ismulaay ansam bu yàlla defalee ba ba ñaan du fanaan àll doo am benn ñaan muy fanaan àll déedéet ana la ni may na ma al sama la gën a màgg gis nga ko fii kulliyati sama biit lépp watant yi dana jublu niyat yi sama yéene ci boppam rek ilaari daahu jëm ci ngërëmam moom yàlla yàlla may na ma siru ismulay ansam dafa ma ko may fii mu ne sama bànneex ci la ko def su ma amee yëg yëgub dara rek loole day dal di nekk fii nag mu ne moom dafa ma koo may dugal ko sama biit lépp kon lépp sëñ Tuubaa Ismulaay ansam ma nga ca lépp lu ñuy askanale sëñ Tuubaa Ismulaay ansam ma nga ca bu dee xasaay di siru Ismulaay ansam ma nga ca moo tax mu ne may na ma la gën a màgg ci sama biit lépp waaye itam su ma yéenee rek dafay fekk mu dëppoo ngërmal suñu borom ñun ñuy kenn ku nekk ci ñun bis bu ne yaa ngi yéene loo xam ne wóor na la lii yàlla gërëmut ko sëñ Tuubaa nee na lépp lu ma yéene rek day fekk yàlla gërëm na ko looloy watantahi ilaa di daxu niyat yi xaasa lii nag minallaahi mi ngi tukkee ci yàlla ilee jëm ci man bi kun ci barkeeb kun rek wala te kenn mosu koo gis ci kenn wala yuraa te su ko gis wala mu kun te mostu nekk di ñeel li mum ci ni ñeel ku yàlla amal nee na lii ma la li ci xasida gi yàlla defal na ma ko te muy may yoo xamee ne ña jiitu amuñ ko ñuy ñëw duñ ko am mu ne lu bàyyi ko ci yàlla mu defal ma ko rek ci kun fayakoon te itam duñ ko gis ci kenn waaye itam te mosuñ ko gis ci ku yàlla bind xaasa lii ma nettali ci xasidi gi min laay mi ngi tukkee ci yàlla ilee mu jëmee ko ci man bi ku ci kun fay kun wala yuraata di su ko gisaat ci keneen ku bokkut ak man wala mi kun te mostu nekk ba tey lii mu ngi ñeel ku yàlla amal ku yàlla bind mosuñ koo gis mu am mayi te itam baya àdduna di tukki ku ñëwati rek du am may yu nu mel subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil te yàlla muy borom tedd nga xamaay si woon walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak caaju jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu yàlla mosu yónni wala am du melo sax dàkk rafet li laay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla muy borom bi defi mu ne maa ngi tudd sell ak sunu borom ak màggaayam di ko sëril di ko sellal di ko sëril lépp lu koy kat yi di melal ci ay doom ak yu ko niru jàmm yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni tagg wu rafet yàlla nekk ci ñoom melo sax dàkk rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi nga xam ne mooy borom bi defi allahumma yow sunu borom xab na nga may lii ñeel ma maa seextu lépp lu may bëgg min ko ci yow bi barakaati ismika laay ci barkeb sa tur wi di allahu yàlla nag ma may lépp lu may bëgg cew rek su ma ne bëgg naa man borom Tuubaa rek ah balaa soxla bi balaa ma ko yàkkamti rek naa bëgg rek yàlla nga defal ma ko ci barkeb sa tur di Allahu kon yàlla damaa bëgg nga may ma lépp lu may bëgg rek ci sa barkeb sa tur wi di Allahu su ko defee nag mu jël Allahu gi tënkee ko xasida gi mu ne Allahu illa yaqut rabbi soofal awliya fii siri wal jahri wal na qawliya nee na toj fal yi awliya yi di am ci seen digganteeg seen borom ci niñ ko mën a tuddee. kenn ku nekk buntu bala yàlla ubbil ca moom nga cee xam loo xamee sa morom xamul ko ca man yàlla buntu yooyu yëpp la ma tijjil ma leen di gis ah kenn kenn mos dégg loolu waaye. xudu wa man nga ilee jëmee ci man rab sama borom ku soofal awliya kas fu nga defal say awliya yi yëpp womatal nga ma ko ma koy gis fii siri moo xam ci lu nëbbu wal jaari ak ci lu feeñ wa nawet ta leeral nga xawliya samay wax. yàlla mboolem bunt yi nga ubbil awliya yi tëjal ko ñu dul ñoom porte man sëñ Tuubaa xam naa ko ci ay kasfu moo xam kasfu yu nëbb la wala yu feeñ ah yàlla yëpp womatal nga ma may jàkkaarloog seen kasfu ya kon Sëñ Tuubaa mooy kuy moo xamee ne xam na néeg yëpp ak ña tëdd xam na wëllu yëpp kenn ku nekk sa naan waay ak fi ngay naanee yëpp Sëñ Tuubaa suñu borom xamal na ko ko ak koo mën a doon rek illa yaqul ku soofal awliya fi siri jari wa nawi qawliya te nee na samay wax amul lëndëm lépp wax yu leer la jamono ju nekk nit ñi di ci gën a teg seen bët te bi maa yeesalu ni ànd ko loo xam ne dafa may bégloo wax ma daata yow yàlla sant nga xomri sama dund yàlla jox nga ma texe goo xam ne dootuma texee di waaye danga may bégal rek ba rek may dugal na waaye sant nga sama dund laka ñeel na la kon nag xitaab yi sama waxante ak yow moo xinan mbir moom muy aji wóor ma péng bi ànd nii man man borom Touba un wi làq naa al ijaabata li ñu li ñuy tuddee al ijaaba muy wuyug ñaan bi xëy na ki nit ñi ànd ko ngën gi kaaraange gi sutura. yàlla yow dong lay waxanteeg bu dee ñaan bu dee tagg bu dee yooyu yëpp bàkk yow rek lay waxanteeg di la ñaan waaye di la tagg waaye itam jamono ji may waxanteeg yow ci mbind ci samay xalima samay daxa daf may wóor péng ne may nga may ijaaba defal nga ma ba tey lu ñuy tuddee ni muy lu ñuy tuddee ngën gi sutura loolu mooy kinani bi xëyri ni mooy nit koo xam ne yàlla muur na ko fa gën ci fépp fu ñuy muuree jàmm foofu la ko yàlla làq kenn mënatu koo lor moo tax mu ne ko laka ñeenal kon xitaab yi sama waxante ak yow moo xinan mbir moom muy aji wóor ma péng ne bi an nii man un wii danaa làq faw al ijaabata lu ñuy tuddee ak wuyug ñaan bi xëyri ki ne ànd ko ngën gi sutura wóor na ma péng ci waxante gi may waxante ak yàlla yàlla may na ma ijaaba muy nangul na ma ci li ma koy ñaan defal na ma ngën gi sutura yonent bi noonu woon na ngeen di ñaan yàlla uddoon laa wa antu moo noonu bil ijaaba na ñaan seen borom te bu ngeen ñaanee ba noppi na ngeen am yëqin ne yàlla nangul na leen ijaal defal yee ñel ma al ansama la gën a màgg ba tey fii aadaate ci samay bit aada jamiha jamiha yëpp bisran mbir moom ma nekk mbégte la da saadaate fa mboolem sang su baax si yàlla dama laa waxoon def ko ci samay jaamu yàlla danga ko jàng ci xasida yi waaye siru ismulaay ansam sunu borom da koo defal ci buy lekk sax wala muy naan mbaa muy socci xaada boo ko digg mooy loo xam ne tabian la nit ki mëntu tàggoo ma lu mel ni nelaw ak yëpp suy nelaw yàlla jox na ko siru ismulaay ansam tasiru ismu laay ansam nekkul ne nit ki buy nelaw defal nañ ko ko wala dana ko xam ak ay caaju waaye sëñ bi dafa dem ba buy nelaw sax mi ngi ak ismu laay waaye buy dox buy socc buy naan ak buy lekk ak dégg nga yooyu yëpp suñu borom defal na ko ci sirub ismu laay ansam mu ne nag su ko defee na ma nekk mbégte fa mboolem sang su baax si koo dégg ñi naan sang rek te mu mat ko ca dëgg-dëgg kooku dafay bégee sëñ Tuubaa moo tax mu ne kon icaal defal lii ñel ma al ansama la gën a màgg te mooy siru ismulay ansam def ko fi aadaati samay xaada aana mooy li lekk ak naan ak ya caaju yëpp dégg nga nga xam ne yëpp la ci na mu xaada boo dégg rek su ko defee nag sëñ Tuubaa su koy def yàlla defal na ko ci ismulay ansam bisran mbir moom ma nekk mbégte man borom Tuubaa la da saadaati fa mboolem sang su baax si xabliya qufraanan akunu qaadira bihi wa suxli xayri naxwi qaadira xab yow yàlla na nga may lii ñeel ma xufraanan njéggal goo xam ne akoonu danaa nekkee bii ci njéggal googu xaadiraa di aji xam kàttan wasux yàlla nanga nga màng xaadiraa koo xamee ne aji wore la li xëyri nax yi mu jëm ci fudu sama wàll yàlla nag ma defal njéggal mooy nag ma jéggal sama bàkkaar yépp njéggal loo xamee ne danaa ci amee kattan ndax nit ki su bëree bàkkaar rek la muy tegtal mooy doy doy dina ëdduna doy dina alaxira mu ne may ma njéggal goo xam ne danaa ci sukkandikoo mën a am kattan man cee dëgëree waaye nag nanga nga màng mu jëm ci furut sama wàll képp ku jóg di wore kooku xaajare mooy ko ne dafa ñëw ngir bëgg laa nax ki nga xam ne dafa ñëw bëgg laa wor sëñ Tuubaa nee na yàlla na nga màng kooke mu jëm ci furut sama wàll xasida googu jeex na mu tàmbali geneen xasida tàmbali ko salaatul fatiha mu ne allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sëlli yàlla na nga julli ala sayidina ci kaw sunu sang muhammadin turam di muhammad alfaati mooy aji hubbi ji limaa ñeel la nga ne uxliqa dafa tëju woon wal xaatim mooy aji mottali li ma ñeel yonent xamee ne sabaxa jiitu woon nañ ko fi naasiri làq mooy aji dimbale dëgg di làq jaaree ko ci dëgg wala haadi mooy aji gindi nit ñi ilaa siraatika jëmee leen ci sa yoon wi al mustaqim yoon wa daaji jub wala ali na nga julli ci waa këram xaqa qadri lu toll ni dëgg-dëgg dara jàmm wa miqdaar yi ak nam toll mooy tolluwaayam ba alxasim ba daaji rëy ba jaaji màgg wa basiru yàlla na nga ko bégal sala yàlla na nga julli allahu yow yàlla ci yonent yàlla na ko bégal moom yonent boobu nag bi haasil huruf ci xaraf ci xasida ci gi xasida wajaxalaa yàlla na ko def xayra maxrofin moom xasida gi muy ngën ci aw yiw mu ne maa ngi ñaan sunu borom mu julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad mboolem li fi tëjuwoon moo ñëw tijji ko buntu buntu yi nga xamee ne dafa tëjoon yëpp te buntu yi nekk buntu yiw su ko defee moo tijji buntu yëpp tëj buntu safaan yi mooy ki mottali yonent yi beneen yonent dootul ñëw ci gannaawam moo fekkoon dëgg muy yooxu di jooy rek mu sukkandiku ci dëgg ba dimbali ko yëkkati ko ba dëgg am doole mooy ki nga xamee ni itam ñi nekk ci dëgg moo leen di gind di leen jëmee ci sa yoon wu jub bi yàlla nga julli ci waa këram julli gu toll ni dëgg-dëgg dara jaam ak tolluwaay bu màgg ba loolu kenn xamul num toll natt la rek la daraja yonent bi kenn xamul ku dul yàlla waaye nam toll ci dëgg-dëgg kenn xamul ku dul yàlla suñ ci mënu leen bindee fi lu toll ni tarfatul ay ni ñoom ñëpp mën nañ cee jaare lakk mën nañ ci jaare sooy ngir daf leen ëpp doole mu ne yow yàlla maa ngi la yaan nga julli ci yonent bi sëlmal ci moom waaye yàlla na ko bégal ci xaraf yi ñoom xaraf yi yàlla na ko def muy ngën ci yiw mu ngën ci njekk al mooy yiw rek safaan ba mooy munkar mooy lépp loo xam ne lu bon la loo xamee ne kenn bëggut ko moo tax mu ne wa basiru yàlla na nga bégloo yonent bi bi atal ci xaraf wajaal ha yàlla na ko def moom xaraf yi xayra maxruf yi muy ngën ci njekk mu ngën ci aw yiw mu tàmbali xasidi gi nag xasidi mi wax ne wa basiru bi atal xuruf wajaal ha xayra maxruf moom lay tàmbali nii mu ne awsil na nga jotal ila nabi jëmee ci yonent bi bu saaraatil aat say mbégte yow yàlla muy kenn yaa muti fan yow mi ma may bi xul walaawu ahad mbootum xul ahad yàlla maa ngi li ñaan nga jotal su yonent bi sallallahu alayhi wasallam say mbégte waxtu ne yonent bi nay bég yow mi nga xam ne yaa ma may xul walaawu ahad secret ca nekk teral ma ca noo ci teraleegut kenn akaramani bi xul walaawu ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla teral na ko ci may ko secret yaak mboot yëpp lim taalif ci ay xasida kenn xamul nu mu toll bi ma nekkee ci géej gi nee na su ma bàyyiwutoon rek di taalib xasida yu jëm ci xulwa nee na noonu yëpp danañu dee ci feebaru mbas waaye damaa mujj jéggal leen xam ne yàlla alag na sama seytaane yaa muti fan yow yow mi ma may bi xulwa laaw aat mbóot mi nekk ci xulwa laaw aat maa ngi la ñaan nga jotal ci yonent bi say mbégte waxtu ne yonent bi daal bu mu gis safaan safaanu mbégte muy naqar tawajantu jublu naa la ko jëm ci yow musalliyan mbir moom may aji julli ali ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko sàkku ci waxalaa yow mi aji kawe an nii nga wuutuma ci salli yàlla na nga julli wala tasi ta yàlla na nga dolli yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoon ak kawem yàlla jël naa sama lépp jox la bàyyi naa la sama lépp deseetuma dara su ko defee nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye waxtu ne maa ngi dagaan ci yow nga di ma ci wuutu taxawee julli googu di ko julli mi mel ni maa ko def waaye yonent bi waxtu ne na nga koy yëkkati di ko dolli ak kawe bu mu suufee mukk moo tax mu ne sa tawajon du sama jublu man borom Tuubaa lakk ko jëm na ci yow dong yow yàlla keneen bokkut Sëñ Tuubaa ay waxam moom jaru taawil jaru def dara yàlla yow ci rek ci yow dong laa jëm si. musaliyan mbir moom may aji julli ala ah yow yàlla muy aji kawe may aji julli ala ah ci yonent bi sëli yàlla na nga julli xam ni wuutu ba ci jëlee ci man mu mel ni maa ko def wala tasi yàlla na nga dolli xon laahu kawe ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daal maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow yàlla muy lépp jox la ko kon nag maa ngi ñaan yow it na ngay julli ci yonent ci mel ni maa def waaye na nga dolli kawe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam donte bi kawe laka xitaabi wa laka taasiru wax daka yaa man minhu jaa taksiru ajabtani lyawma ijabatal qadiri yaa xayra muxtin bil ijabati jadir abli rasulillahi ma yasidu wallahu yaa man hendohoo masidu laka ñel na la yow yàlla kottu kottu waxante ak yow wala ka ñel na la ak ëfal ku neex wax daka yow kottu yaa man yow yaay ki nga xamee ne jaa ah dañoo xasaf xam si ngir wëy dikk na min hu tukkee ci yow ñëw ci man taksiru ak bëril ajabta ni nangul nga ma al yow ma tey ji ijaabatal xadir nanguluk aji xam kattan yaa xayra muxtin woonaal yow ngën gi aji joxe ji nga xamee ne jëdir aji yeeyoo nga bil ijaabati ci nangu ñaan xab mayal li rasulillahi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa yi si loo xam ne dafay dolli waxtu ne xollaahu kawe gim kawe yaa man yow yàlla mi nga xamee ne xen doo nekk na fa moom masiidu ak ndollan yàlla yow kose lay waxanteeg te lu ñuy wax ëffal mooy xool jàmm la neex jox ko loo xamee ne joxoo ko kenn a ah, yow loolu yow rek la ñaal yow ndax yaa moom lépp yow yaay buur bi nga xamee ne waxtu ne dafay am luy dikk ci yow dafay am luy bay koo ci yow di dikk ci man te loolee su ñëwee ci man day yokk samay mbir muy gën di bëri yaa man min hu jaar takk mooy ko xam ne waxtu yàlla da koy defal teraanga xéwal yo xam ne day gën di bëri yàlla tey jii kat nangul nga ma waaye nag yow mi yow mi nga xam ne tëlifoo dara lu way ñaan lu ne am nga ko sañ nga koo jox yow mo yaa ma nangul moo tax mu ne tey jii nangul nga ma nangulu aji am kàttan ci lépp lu ko waaye di ñaan am na sañ-sañ ci jox ko woo naa la yow gën ci aji joxe ji nga xamee ne ku yeyoo nga nangu ñaan amul kenn kuñ naan yeyoo na nangu ñaan ku dul yàlla yàlla rek moo ko yeyoo mu ne ko mayel yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne waxtu ne yonent bi ak kawem day gën di dolleeku yow yàlla mi nga xam ne lu ñuy tuddee buuñaa muy masjid nekk na fa yow wala day naa fiyaa masjidun buñ duggee aljana ñu dugg aljana dañuy gis yàlla waxtu ne am na ñoo xamee ne loolu masjid la tudd li la seen ahsanul husna wa siyaada boobu moom la alquran di junj te sëñ Tuubaa nee na wali xaada dégg nga xayra saydin anil husna wali xaada rabbi xayra saydin anil husna ci xës rek li yan xaada nee na suñu borom jox na ma ngën ci buuñaa gannaaw ba ma duggee aljana kon naka laka ñeel na la xitaab yi sama waxante ak yow wala ka ñeel na la taxsiru ak ëffal wax daka yow kott yaa man yow yaay ki nga xam ne jaa dikk na minhu tukkee ci yow ñëw ci man taksiru ak bëril samay xéewal daal waxtu na day gën di bëri ndax mu ngi tukkee ci yow di ñëw ci man samay mbir di gën di yokk ajabta ni nangul nga ma al yawma tey jii ijaabatal qadir nangulu aji am kattan yaa xayra muxtin woo naa leew ngën gi aji joxe ji nga xamee ne jadir aji yeeyoo nga bil ijaabati ci nangul ma sama ñaan xab mayal li rasulillahi ñeel yonentub yàlla bi maa yisidu luy dolli waxtu ne xonlaahu kawe gim kawe yaa man yàlla mi nga xamee ne xen doo nekk na fa moom masidu ak ndollan yow mi nga xam ne daal dolli yow rek yaa ko mën a defal sab jaam ay mbiram di gën di jëm kaw dama bëgg na mayel yonent bi loo xamee ne ak ndollanam daal waxtu ne ak ndollanam day gën di yokk di gën di bëri ak kaweem itam day gën di dolleeku xasida googu jeex na bu ñu diwaat geneen xasida gum tënkee allahu mu ne sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur ñëpp na rahimi buur bi di aji yërëm ku ko soob ci àlaxira mu ne maa ngi tàmbalee ci turu borom yàlla mu di aji xéewalaa kon ñëpp ci àddina yàlla mu di aji yërëm ku ko soob ci àlaxira atlubu maa ngi sàkku min ka ceew ma xam-xam xablal xamali bala maa jëfee lu jiitu jëfee ga fal taqni fegal ma aljeexla réer te mooy ñàkk xam-xam waxur womatal lii jox ma amali samay mbibét yàlla maa ngi sàkku ceew nga may ma xam-xam bala maa jëfee daal na am xam-xam ndax bala ngaa jëfee day aajo nga xam nit ki nan lay jëfee te <laughs> Ah, nit ki lan lay jëfee te xamut kon xam-xam loo am solo de xam-xam moo war a jiitu fépp rawatina nag ci jaamu yàlla nga fexe nag ba xam lépp lépp luy dugg nga xam ko nooy jaamoo yàlla su yàqu nga xam ni nga koy defaree lool yëpp nit ki da ko war a jàng bala moo dëgg-dëgg soobu ci yenn jaamu yàlla yi su dul loolu rek mën ngaa dugg foo xamee ne doo fa mën a génne sa bopp te ala ko mën na la faa ñeel te loolu yëpp la ko yóbbee mooy ñàkk xam mu ne kon danaa sàkk ci yow xam-xam bala ma koo jëfee bu yàlla mayee xam-xam nag kon jëfeexal waaye nag ki amul xam-xam nan lay mën a jëfee kon nag yàlla musal ma ci réer te ñàkk xam-xam kon dafa wax yàlla mu fegal ko ko kon ñàkk xam-xam lu bon bon la waaye yàlla lépp lu may bëgg di ko mbébét yàlla nag ma ko womatal jox ma ko jut na may lii ñal ma bi ci sama yéene la daa ibtidaa isay in fa suma tàmbalee mbir fa anta yow waaxi boxtidaa yaa aji may ak gindeeku yàlla su ma yéene di tàmbali dara rek yàlla may ma lama ma mu amee noonee yow mi nga xam ne lu sotti yaa ko sottil loolu rek la bëgg a wax lu sotti yàllaa ko sottil lu waaye di tàmbali ngir bëgg mu mat yow tàmbali rek nga am mais yàlla mooy mottali mu ne su ma yéene rek yàlla matala lépp jut kon may lii ñal ma bi niyetin ci sama yéene la dab ti daa isayin fa tàmbali mbir yàlla may ma ko mu amee noone fa antata yow yàlla waaxi bu ti daa yaa aji may ak gindeeku jut mayal lii ñal ma bi sabrin may muñ fil xibaadaati ci biit jaamu yàlla yi jëmil yow yàlla muy aji rafet ji xataa utamimaha xataa utimaha ba keroog ma koy matal wakkul yàlla nga doole nekk lii ñeel ma bil jamil ci dégg nga ci li nga xam ne moo di may yoo xam ne yu rafet la yu taaru yàlla may ma sumay may jaamu yàlla ma mën a muñ loolu yàlla moo ko digle ci alquran sabru xalaa sabru an muñ ci jaamu yàlla dafa am muñ ci bàyyi mooy dafa am muñ ci dogalug yàlla yi yi xam ne dafa naqari kon jàmbi suy jaamu yàlla bañ mooy yàlla loolu muñ la tudd mu ne yàlla may ma nag su may jaamu yàlla muy muñ yow muy aj rafet ji su ko defee nag bakke rek jaamu yàlla gi di sotti di mat waaye nag ma doole nekkal ci may yoo xam ne yu rafet rafet la loolu mooy jëmmil gu mujj kon jut jut na nga tabili ñeel ma bi sabrin ma sax ci muñ fil xibaadaati ci biir jaamu yàlla yi ndax jaamu yàlla dafa metti jëmmil yow yàlla muy aji rafet ji nag ma may ma muñ ko nag ta uti ma bakke rek muy mat ndax mbir yëpp ñu ngi ci matal ga ba ko yàlla nga doole nekkal li ñeel ma bil jëmmil ci may yoo xam ne yu rafet la xam na nga may yàlla te yow dong tax bil a ci daraja ku ñu tànn ka waab yàlla nga may lii ñan ma xalaasa ak sell yàlla su may jaamu yàlla may ma ma sellal ndax loolu rek la yàlla digal jaam bi gannaaw bu mu ko digalee mu jaamu ko wa maa umiroo ilaa liya'budullaaha muxlisiina kon loolu leer na ndax alaa lillaahi diinul xaalisu muxlisan lahu diina yooyu yëpp ko ci alquran yàlla moo digal sellal gi loolu moo tax wàcc sax xul wala aar moo tax ñu tuddee ko al saaru waaye itam mboolem li bay ko ci kaw asamaan di wàcc suuf la cëpp doole mooy tawfiq sëñ Tuubaa boole ñaan ko ci benn xasida ci benn bayit bi hurmati siddiqool faaruqi jutliya bil ixlaasi wa tawfiqi kon gis nga borom Tuubaa lépp da ko ñaan gannaaw ba nga xamee ne suñ borom may na ko xam-xam yooyu yëpp da ko bind ñaan ko su ko defee ñi koy jàng suñ borom di leen enkiwal ñiy sellal suñ borom di leen may ak sell di leen may tawfiq tax mu ne yàlla ma waaye xalaataa gi mujj mooy ma am sell xam nga kuy sellal da ngay dem ba am sell gis nga nit ki lépp lu muy dégg nga sellalee yàlla rek day dem moom it ba sell ba yëg ak sell ci moom dégg nga ba yëg ak defaru ci moom boo dégg ñee nit ki defaru na wala nangam mooy wiital gi muy wiital yàlla te bañ ko bokkaale waaye nit ki alako na ki nangam foo ko dégg rek mooy tuumaal gi yàlla di ko bokkaale moo waral nag mantu jag ay jukkoom dara mënu cee jag kon waxab mayal lii ñel ma alxalaasa ak sell la waxoon na ko ca jaalibu def naan yaa waay bal kafaafi wal xalaasi feegu suñu borom moo koy may jàmm ko neex mooy jaam xam ne du tooñ ci ay cëram du tooñ yàlla du tooñ moromam waaye itam suñu borom mooy may lu ñuy tuddee sell ku ko neex ko nekku ne ñëpp koy am. xasida googu jeex na mu dal di tàmbaliwaat nag geneen xasida mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi. arahmaani buur ba di xéewalaa kon ñëpp na àddina arahimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci àlaxira mu ne maa ngi tàmbalee ci turu suñu borom wu màgg wi te sell wi. yàlla muy xéewalaa kon bépp jàmm boo mën a gis ci àdduna yàlla muy aji yërëm ku ko soob ci àlaaxira nag mu indiwaat geneen xasida goo xam ne da koo tënkee allahu mu ne ilaa siwaaya wali xayri jihat yi wa jih asan wali tayib jihat yi mu ne wa jih yàlla na nga jëmale asan bépp lor ilaa siwaaya mu jëm ci fudul man wali xayri jihat yi ak fudu sama wàll wa tayib te yàlla na nga teelal li ñeel ma jihat yi sama wàll yàlla lépp li lor na jëm ci fudul man na jëm ci fudul sama wàll xam nga jëm ci fudul man bokkut ak fudul sama wàll waxoon naa la sëñ sama wàll rek kooku lépp day dugg wàllu sëñ bi ba ci ñi aju ci moom ca dëgg-dëgg seen kër yaak seen ganaar yaak seen muus yi sax ci lañ bokk <laughs> seen kër yi seen ganaar yi seen muus yi sax ci lañ bokk waaye bu dul fudul man nag kooku moom rek la concerné waaye bu dee fudul sama wàll ah nanga xam ne kon ñëpp ay dugg ku aju ci moom ak njabootu bopp mag jumaa am jéq si dam yeeg lépp lu tax ci sëriñ bi rek ci la bokk kon loolu moo gën yaatu wàllam mu ne lépp luy lor nag na jëm ci fudut man ak fudut sama wàll waaye na nga teeyal sama wàll kon gis nga ko. suux na nga màng ku la la képp ku ñu rëbbu li wàcce ka ngir sa jëmu ji alkarimi ji daa ji tedd li mu jëm ci lurut la nga xamee ne yedduru dana lor nax wi sama wàll yaa mu añ yow muy aji dimbale képp ku am dimbal yàlla képp ko rëbbu sëri sa sa yërmande moo xam iblis la wala njabootam ay mbokkam képp koo xam ne jukkoo seytaane ak melokaan rek la yàlla dama lay ñaan sa jëmm ju tedd ji ngir sa jëmm ju tedd ji kookee na nga ko màng nga xamee ne su naroon ñëw sama wàll du ma mën a lor du jublu sax sama wàll ba di ma lor yow mi nga xam ne ku mën a mucc ci loolee yaa ko dimbale ba may ko ko waaye ci dëgg-dëgg du jàmm kattanam ak mën a dégg nga mën a xeexam ak ya caaju kon nag suux màngal ku la la képp ku ñu rëbb li wàcce ka ngir sa jëmm ji alkarim ji daa ji tedd le xëyri ma mu jëm ci lurut la nga xamee ne yëdduru dana lor nax yi sama wall yaa ma an yow muy aji dimbale ji kon daal bu jógee na teggi sama wàll bu mu lor sama wàll lu bokk sax wàll rek na ko teggi na nga ko def ngir si jëmm ju tedd yi mooy képp ku ñu rëbb rek màngu ko dàq mu jëm ci feneen fu bokk rek man. laka ñeenal yow kootu kootu xitaab sama waxante ak yow wa jaal te def nga fitri sama dog foo ko si yaamin mu kawe koor yëpp wax may taxaaral nga ba xutri sama gox yàlla yow kese lay waxanteeg yow dong lay waxanteeg moom la suñu bilaad wax ne laka xitaab yi ngay jàng yëpp ba mu koy wax kuraan amin sax nekkul fa suñu bilaad ne ku ko téyel sa laam gi sax wala si jaadaam gisul ko ba mu ci géej ga koor yàlla rek la doon waxante yàlla yaa def sama dog mu kawe koor yépp su ma dogee jël poto ndox naan waxe sëñ Tuubaa nag jaru taawil boo taawilee rek yaa tooñ sa bopp waaye su ma jëlee poto ndox naan ni naan neexee koor yépp ni koor méttee man sama naan googu moo leen féete kaw kon gis nga ko daggam gi muy dagg rek nga xam ne da ciy am mbégte a ah, nee na koor yi nga xamee nit ñi dañ koy def jam jamono jamono jooju di ci jànkuwante tartar ak xiif nee na man sama dog rek féetee na leen kaw wa léegi kon moom kooram gi moom mooy mooy lan kooram gi moom ban koor la tolloog su fekkee jël pot ndox naan di dagg rek ba mu wooree mu féetee kaw koor yi nit ñi moom kooram moom ni muy war a toll moo tax mu ne ko yaa def sama dog mu kawe koor yëpp koor goo mën a jël rek sëñ Tuubaa nee na bul bàyyi waaye yaa xaar sama gox bu waxee sama gox mooy pays bi mu dëkk muy Sénégal waxamaytu xutri moo xaar fi nga xam ne daal fa la dëkkee muy Touba ak li ko wër yëpp tabaarakallah loolu mooy goxam. Ejaal defal baqiyata xayaati li des ci sama dund saafiya muy aji sell min kadirin ci bépp nax-nax wajaal yàlla na nga def kalaami samay wax nag saafiya muy aji saafara bépp jàngoro. yàlla li ma fi dese ci àddina boo boo déggee ba xëyta xayaat yi mooy nit ki lim dese ci àddina benn mu xam ko bu ñàkk xam kañ lay faatu kenn ku ne ci ñun xamoo xamoo ko. dégg nga yàlla lay neexal rek mu ñëw ak soobareem alaa kulli haal mu ne li des sama dund daal yàlla dama bëgg bu ma ci defati benn nëx-nëx sama dund daal na mucc ci nëx-nëx yi nax-nax mooy li yàq dund nit ki lu yàq jëfi nit ki li nga xam ne bu raxee ci jëfi nit ki du sell bu raxee ci ay waxam du sell ay jëfam du sell ay yéenam du sell dégg nga yàlla yàlla musul ci nax-nax yi yàlla yàlla nga def sama wax yëpp mu nekk wax yoo xam ne ku ko déglu ku ne jëriñu ca lool mooy wax yu saafara wax ju saafara soo ko dégg may wax joo xam ne ku ca dégg rek ku ko dégg rek su fekkoon ne da ngaa réer da nga ci gindeekoo gindeekoo googu rek saafara na la aday tani gindil nga ma sa bopp sunniya yow yàlla ñoŋal nga ma maaxaaxe yàlla ànd koog sama njaboot safi na nga sellalal lanaa ñeel annahaara sunuy bëccëg ka layaali ni ki sunu guddi yàlla gindil nga ma sa bopp nag ma aar laq ma fu yàq yeggut man ak sama njaboot ah, yàlla aar nga ñi foo xamee ne kuy yàq daal du ñu gis mukk mën ak sama njaboot kon nag guddi yi ñuy dund ak bëccëg yi na sell mooy buñ ci am benn tolof tolof ak benn nëx-nëx bum ñu gàllankoor ci biir guddi yi wala bëccëg yi xadaytu ni gindil nga ma sa bopp sunniya protéger nga ma maaxa yàlla man ak sama njaboot laq nga ñu foo xam ne daal kuy yàqu du ñu gis safi na nga sellal lanaa ñel nu an naxaare bëccëg ya kan la yàlla ni ki guddi yi guddi yi ñuy dund ak bëccëg yëpp na sell ci ñun bum nëx subhaana rabbika tuddama sell ak buur bi rabbil ansati yàlla muy borom tedd nga amaa yi ji foo na walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak i caaju wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni wala am du melow sax dàkk te rafet li laay aji sax la ñeel yàlla yàlla muy borom bindee fi mu ne maa yàlla mi nga xam ne mooy borom te nga maa ngi koy sëri lépp luñ koy melal ci ay doom ak i caaju jàmm yàlla nekk ci mboolem ku yàlla masu yónni melaw sax dàkk ta rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi nga xamee ne mooy ki moom bi def yépp mooy seen borom.